ñu tànnoon thème bi ñuy wax wàccuwaayu xam-xam ci yoonu murit fas yéene ci ànd ak borom xam-xam bu mag mooy sëriñ Bassirou Faye nga xam ne ngi jànge Égypte nekk di jàngalekat di yarekat waaye bokk ci waa kër sëriñ bi moom la ñu taxaw mu fas yéene defal waxtaan wi xam-xam nag ci yoonu murid ku ne xam ne ne Serigne Touba ci daara la nekkoon ma moo ante Serigne bi waay juróom daara la yoroon kon ci jàng ak jàngale ci la nekkoon ba digalul suñu borom ñëw digal ko mu boole ci tarbiya mu yar mu boole ñaar yi muy jàngale ak yare dëkk bu mu mos a ñaar yooyu la koy boole mooy jàngale ak yare ñi mu yar ñëpp yi ci loolu la leen yar gannaaw biñ ko noppee gi ci zahiri ay waa këram yëpp ci jàngale ak yar nit ñi ak defar leen ci lañu nekk ba sunu jàmbaar bu tedd jël su sëriñ bu mag ba sëriñ Saaliw gis nañ waaru rëy bi ci bay ci ak yare yàlla na ko yàlla doon lay fayal kii di sunu yaakaar yi di sunu bunt ci sëriñ Touba di sëriñ Mourtala di koy ñaanal mu yàgg te wér te moom it foofu rek la teg tànkam ci jàngal nit ñi ak yar leen waxtu bu nekk ku ku gis taxawaayam ci ni mu yore daara yi ko sëriñ Saliou bàyyi nga xam ne loolu yitteel na ko loolu waxtu wu nekk bëgg na li sëñ bi bàyyi ci loxo mu yokk ko gën koo taaral ba ndongo yi nga xam ne ñu ngi ci loxoom ñëpp lañu bëgg lépp ñu am ko loolu it moo tax mu indi daaray ngaaw ji nga xam ne dana ci ñëwaat nekk daara yoo xam ne nii dañ fay jàngale lépp loo xam ne dëppoo na ak jamono ak bépp xam-xam bu am njariñ ngir waajal ndongo yi bu ñu mokkalee alxuraan ñu def ci ñoom lépp loo xam-xam te am njariñ ak lépp loo xam ne jàpp nañ ne métti la muñ mën a jariñoo loolu ci xalaatu sëñ bi la jógee te liggéey boobu tàmbali ba mbokki taalibe yi ñu bari xam nañ kon ci gàttal rek loolu la ñu ngir jox Serigne Bassirou mu dugal ñu ci bi mooy wàccuwaayu xam-xam ci yoonu murid ngir ñu bañ a euh, yéex lool daal di dugg ci waxtaan wi xam ngeen ne niñ ko xamee at mu jot ci màggal yi dañuy tànn euh, benn thème waxtaane ko mu doon yóbbalu màggal gi ni ko euh, sëñ maam Cheikh Fall waxe léegi nga xam ne ñaari xeet ñu ngi fi am na ñoo xam ne dañuy màggal ci bernde am ñoo xam ne dañuy màggal ci wàllu ruux te ku ne xam na ne lële mooy dëgëral aw yaram waaye ruux xam-xam moo koy dundal ak sell ak jaamu yàlla ci bunt boobu nag <clears throat> ñu tànnoon thème bi ñu tuddee wàccuwaayu xam-xam ci yoonu murit ndax waxtaane ko dafa baax li tax mu am solo mooy day tax ñi ko xamul xam ko te bàyyi ko xel ndax àdduna sépp ci loolu la taxaw mooy ci xam-xam ci la doomu aadama yi di rawante ci lay nation yi di rawante ci la lu am solo lépp nekk mooy xam-xam suñu waxee xam-xam nag euh, ci lislaam liñ ciy jiital mooy xam-xamu diine xam diine mooy xam bi jiitu ci xam-xam yi ci lislaam bu weesoo li ñuy tuddee ay xam-xami àdduna lépp lu ci liggéeyal diine moom it am na solo ndax diine du ko bañ ndax diine day woote li ñuy tuddee xikma xikma nag yàlla sunu boroom daf ne kum ko jox jox na la lu rëy kum ko jox jox na la ngëneel lu rëy rëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di feelu wax ji daadi ne xikma mbir la moo xam ne xam-xam la waaye dafa réer puso bu réer la dañ koy seet fépp fu ngeen ko gisee bu dee ci biir jullit ñi nangeen ko jël bu dul ci biir jullit ñi sax jël leen ko te fexe mu njullite loolu mooy xikma kon xam-xam euh, boom lañ bëggoon a waxtaane solo sim am ak nuñ ko nuñ ko war a jàppee ci yoon wi wàccuwaayam mu mel ni dañuy leeral ñaari baat li ñuy tuddee ak murit murit mënees na ko taarif maanaam xamle ci yar ak xam-xam mooy li ñuy tuddee a tarbiyatu wa taalim murit yar la waaye yar la boo xam ne dafa ànd ak xam-xam ndax xam-xam kese taxut ñuy wax Serigne tuuba moom bi muy wax ci xam-xam nga xam ne lim ci révolutionné nga xam da ko beesal ci buntu xam-xam mooy xam-xam bu àndul ak ragal yàlla xam-xam boobi amul solo kon xam-xam balaa am solo day ànd ak ragal yàlla ndax nit ki bu ragalee yàlla ci lay jëfee jëf ju baax ci xam-xam boobu looloo tax ah, kenn mënut ne ñiy def luy gaañ doomu aadama masalan jumtukaay yañ ko defee ci buntu xam-xam lañ ko teg waaye li tax xam-xam boo baaxul mooy yéene ju rafetut jë ak ñàkk ko teg ci ci ragal yàlla ndax ya ragal yàlla kat ku ko def boo xamee dara doo ci lor sa bopp waaye doo ci lor sa moroom waaye da ngay wëlbatiku di ko jaamoo yàlla sunu borom da ngay wëlbatiku di ko jaamoo yàlla sunu boroom kon mënees naa wax ne xam-xam mooy yar ak njàngale ci yoonu murid ñoom ñaar dafa mel ni xaalis bu am ñaari xar kanam boo wëlbatee muy moom soo wëlbatiwaatee muy moom loolu la arab yi di wax ne wijhaani eh, li umlatin wahida ñaari xar kanam la yoo xam ne ñoom ñaar ñëpp ay faj aajo kon kenn mënta wax yoonu murid te waxoo ab yar waaye kenn mënta wax yoonu murit te waxoo xam-xam kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ndax da ci am ci ci ñoo xam ne ñoom li ñu jàpp mooy yoon wi yitte rek la waaye du yoonu xam-xam loolu li koy indi mooy bi sëñ bay woote e, e, wooteem bu rëy bi te fekkoon nit ñi di jàng waaye sëriñ bi woote daal di indi yoon wu bees boobu fekk na nit ñaa jàng waaye yitte ji moo manqué sëriñ bi daal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko jox ndigal ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi dars na yar njaboot gi ci yitte te bañ leena yar ci am njàng kese loolu li muy firi mooy kon njàng am na fi mi ngi fi waaye njàng kese doyul faaw nit ki boole ci yitte ngir mbir mi sotti kon xam-xam liñ ci njëkk a jàng mooy day ànd ak yitte day ànd ak ragal yàlla ndax yitte mooy ragal yàlla kon dangay xam ne ci bu teel euh, Serigne Touba moom dafa ñëw rek ngir defar doomu aadama yi defar doomu aadama yooyu nag ci buntu xam-xam la ko jaar ak buntu yar kon yar ak xam-xam ñooy yoon wi nga xam ne képp ko bëgg a defar doomu aadama foofu rek nga ko mën a jaar nit ku ko bëgg a defar bunt bi nga ko mën a jaar mooy da fexe ba mu xam da ngay fexe ba mu yaru soo ko beenee yit mu baax da ngay fexe ba mu yaru nga de nga fexe ba mu xam ñaar yi boo ko defee doomu aadama bi dana mën a yegg fu mu jëm waaye benn boo ci jël sàggane bi ci des dina am rëq-rëq boo xam ne dana feeñ ci kanam loolu Serigne Touba loolu la indi ci révolution maanaam ci wàllu xam-xam kon suñu waxee Euh, place di savoir yaakaar naa noonu lañ ko tudde woon ci tubaab moo dëppoo ci arab makaanatul ilmi palaasu xam-xam ci biir yoon wi noonu la demee te sëriñ Touba yemul ci loolu ndax bu ñu waxee yoonu murid rek Serigne Touba la ñuy tàmbalee Serigne Touba bi mu euh, digalee doomu aadama ñu yem ñu am yitte dafa warlu tam dimbali leen ci ay moyens yoo xam ne suñ suñ ci jàppee loolu ñu bëgg danañ ci yegg ndax xam nga bu njëkk ba ay téere amoon na fi téere yi ñuy jàng yëpp mi ngi fi woon yàgg naa ñëw senegal nit ñi yàgg nañ koo jàng téere yu jafe woon la nag ndax loolu li ma tax ma wax ko damay bëgg a firi li tax sëriñ bi taalifaat téere yi tey bu ngeen xoolee téerewu wu imam Sanusi boobu Euh, ci euh, mawaahibul quddus xam nga tawxid la nga xam ne day jàngal doomu aadama lan mooy dëgg dëgg dëgg wéetal yàlla sunu borom waaye euh, xeet niñ ko bindee woon bu njëkk ci tex dafay yàgg-yàgg ba nga xam ne njàng dafa laaj léeg-léeg bu jamono doxee tuuti ñu beesal ko daal di defaraat curriculum yi dëppale ko ak ñi nga xam ne ñooy jàng tollale ko ak seen xel ba nga xam ne objectif bu njëkk ba danañ ko mën a am ba léegi nga gis Serigne Touba daal di jëlaat téere yooyu daal di koy taalifaat daal di koy taalifaat tuddee ko masalan mawaahibul xuddus mu doon ay may mayi yàlla mu sell mi waaye ci biir mayi yàlla mu sell mi mu ngi la ciy jàngal lan mooy taw tawxiid kan mooy yàlla yàlla boo ko bëggee xam dëgg dëgg dëgg dëgg ñëw nga jàng ko fekk sax njëkk mu lay bindal ma waahibul quddus bindal na la tazawudu sigaar nga yóbbaloo ko boo nekkee ndaw mu bindal la tazawudu shubaan nga yóbbaloo ko boo nekkee waxamaane boo yeggee ci benn dayoo bi mu jàngal la ma waahibul quddus fekk ñor nga tuuti ci tawxiid dégg nga mu jàngal la niveau bi gën a sori nga xam ne dana la fa jàngal ne la yàlla mii kat ku am la jàngal la aw lay wuy wane ne suñ la waxee looy firndeel ne yàlla am na nga ne fii laa ko teg ak fii ñu jàngal la ci biir téere bi ne la yàlla day moo fi jiitu ñépp waa nooy firndeele moo fi jiitu ñëpp mu jàngal la ko ci biir téere bi jàngal la ne la yàlla kat dafiy des jàngal la ne la yàlla ku wuute ak mbindeef yi la jàngal la ne yàlla soxlawut kenn te ñëpp ko soxla mooy alxiyaamu bi nafs jàngal la yàlla kat waaxit la du ñaar du ñett du ñeent bu noppee ci yooyu jàngal la li ñuy tuddee sifaatul maani ak sifaatul maanawiya maanaam yàlla kat day dégg day gis day wax dégg nga eh, waaye ci anam bu méngoo ak ak ak jëmmam waaye nam koy defee sax mën nañ koo bañ a xam waaye nga gëm ci sa pas-pas ne yàlla sunu borom day def yii yooyu mu lim ko mu nekk ñaar fukki melo mu indi safaan yi ne la ñaar fukki melo yi ka soo ko gëmee gëm nga yàlla waaye boo gëmee safaan yi benn dong weddi nga yàlla sunu borom loolu faw dangay jàng ngir mën koo xam boo jàngul doo ko mën a xam loolu moo tax jàng am solo ci yoon wi ndax bu ngeen xoolee ci jamono yu weesu sax di ngeen dégg coow yu bëree bari li koy indi mooy ñàkk gëstu sëriñ Touba ak ñàkk càmbar sëñ Touba bi mu fi ñëw lu mu fi fekkoon. ak bi mu ñëwee ba ñëw lu mu indi lu bees ba tax ñu jële fi li fi ne woon indi li fi nekk tey léegi nag boo bëggee delloo doomu aadama yi nag ca jamono jooju nga xam ne boobu sëñ bi ñëwagul léegi lii Sëriñ Tuubaa bind moo lay tontu loolu nag tontu yooyu faaw da ngay dem yër téere yi nag mën koo xam léegi loolu yóbbal la boo yërul téere yi doo mën a xam li Sëriñ Tuubaa wax te Sëriñ Tuubaa moom li wax moom mooy yàlla kenn la yàlla rekk la ñu yaakaar yàlla mooy xettalaa kon bi dégg nga yooyu la la Serigne Touba jàngal nga xam ko ci biir tawxiid kon bi mu indee yoon wi jàngal na nit ñi li ñu war a xam ci wàllu pas-pas seen diggante ak seen boroom. kon euh, euh, bu ñu jógee ci poñ boobu ñu dolli ci euh, rôle bi nga xam ne yoonu murit joué na ko maanaam def na ko ci wàllum yar ak wàllum xam-xam ndax bu ñu xoolee. wàllu daara daara nga xam ne euh, santar lay doon boo xam ne santaru yar lay doon daara barab lay doon boo xam ne barabu yar la waaye mboole seen yar ak jàng lañ fay def bu ko defee nit ki dafay tarbiyaw ci wàllum alquran ci wàllum zikrulaahi maanaam mën nga ko tudde jàng xasida ci wàllu li ñuy tuddee taalim nazari ci wàllu théorie tamit dafay jàng xeetu xam-xam yooyu waaye dafay jàng tamit ci wàllu pratique naka lañuy ñuy defee xidma naka lañuy liggéey ñaq di jariñu ak ñaq di di jëriñ sa moroom loolu lépp dañ koy jàng ci biir daara kon loolu kenn mënu koo wane euh, ñàkkal fayda wala nga koy suufeel wala di ko wan ginnaaw soo xoolee euh, taxawaay yu bari yoo xam ne mën nañ cee tudd ay misaal nga xool ci ay barab yoo xam ne ñu soxe ñu so ñu soqi ko ci yoon wi ñoo ko teg def ko ay barabu xam-xam yu bari yoo xam ne nit ñi dañ fay dem di fa jàngi di fa tëbbu di fa defar seen bopp ci wàllu ruux di fa defar seen bopp ci wàllu xel mën nga cee tudd euh, daarul alimil xabir kër la goo xam ne dégg nga Serigne Touba moo ko sos xam nga sëñ bi moom ni nga ko xamee day sos ay barab bàyyi ko dem feneen lu ci ëpp ba ba mu ñëwee tuubaa nag Touba la sax waaye xam nga ne barab bu mu a jaar jàngukaay dafay am jaamukaayu yàlla dafay am yooyu mooy yi nga xam ne moom lañ fay njëkk a def. su ko defee ci biir loolu xam ngeen ne. mbir yi boo ko xamee ni mu waree nii ñu ko xamee nii nga xam ne noonu lañ ko waxee sëriñ Mourtada saaliwu mi mi ngi ciy bay waaram ndax liggéey bi nga xam ne da koo jële ci ay waajuram nga xam ne doonut lum sos waaye fi la ko fekk yàlla doxal mbir yi ba tàbbal ko ci loxoom ci lim ko jox loolu mu ngi ci di ci dox di ci wax di ci xalaat dégg nga ngir bëgg loolu euh, maam yi daan def ak bàyyi yi jële ko ci Serigne Touba moom it mu def ci lim ci war a def bay ci waaram fexe ba jàngal nit ñi fexe ba yar leen loolu tey moo indi euh, jàngukaay bi ñu tàmbulee defar ci ngaabu ndax xam nga ne daara yi am na ñoo xam ne bu ñu fay ñëw ay tuut tànk la doon ñu jàmbuli leen di jàngal ba ñu yegg ci benn dayo bi Ah, diggante boobu àdduna am na lum laaj ci jamono yi ñu toll lu bokkul ak ak ak doxaliinu démb ak bërki démb ndax ab yarkat kat bokk na ci yitteem muy gàttandu doomu aadama yi fi ñu jëm ci biir gàttandu googu nag nga seetlu bu baax nga gis fi mu jëmee nit ñi fi mu jëmee gone yi nga xam ne bu ñu demee ba doon li ñu war a doon nu nu ñuy mel nu réew mi mel loolu laa am solo mu am taxawaay bu am solo bum ciy taxaw mooy. defar barab bu mucc ayib boo xam ne fii ci ngaabu dégg nga ci daara jafa ne woon soppi xar kanam gi ba mu méngoo ak ak ak li nga xam ne xew na ci jamono ba noppi eh, eh, téye cosaan yi nga xam ne moom mooy cosaanu yoon wi ci yar ak ci jàng bu ko defee ñooñu bu ñu fa ñëwee ñu toqiwaat leen continuer seen formation jàngal leen jàng li nga xam ne eh, eh, jàngaguñ ko ci wàllu xam-xam ci wàllu eh, tawxiid ci wàllu fiq ci wàllu tasawuf ci wàllu gëstu ci wàllu lépp loo xam ne bu ñu nekkutoon ci barab bi dégg nga xëy na moom la ñuy jéem a jàngi feneen ñoom am nañ lu keneen amul ba noppi ñu jéem leen a taxawu nag ñu ñu mel ni ñëpp mbaa ñu raw ñooñu ba fu ñu demati mën a bokk foofa nga xam ne moom foofu lay xalaate doomu aadama bi kat doo ko téye rek waaye boo ko teewee da nga koy da nga koy jariñ ngir jëmmi yàlla ndete sax looloo tax mu ànd ak yow moom buy ñëw ci yow day ànd ak yow ci àdduna ànd ak yow ci àllaaxira léegi nag njëriñu àllaaxira loolu dégg nga ci àdduna lay tàmbulee nga gis ni mu lay taxawoo ak ni mu lay teetee ak ni mu la bëgg a dimbalee ngir jëmmi yàlla nga xam ne bu la bu la waxee leneen nga mën koo gëm ndax ndax ku ku la jox kat su nee la xaaral di nga añ dégg nga di nga gëm ne di nga añ bu la joxee añ ne la xaaral reer di nga gëm ne da nga xaar reer kon fii lay tàmbuleeg yow di dox si yow dégg nga di la defar di la toqi di la formé ba nga nekk nit ku baax ku yiw dégg nga ku mën a doxal àdduna ba boo fa jógee lu ñu la dénk nga mën koo ñoŋal mën koo lewal ci sa sellaay ak sa diine waaye mën mën koo eh, lewal dégg nga eh, doxal ko bu baax ndax sa xam-xam foofu loolu ci lay dox xam ne barab la boo xam ne su ñuy wax tey jii ba wàccuwaayu xam-xam ci yoonu murit bu soobee yàlla mën naa bokk ci barab yi nga xam ne dégg nga dañuy nekk faar ci loolu ndax euh, yéene ju sell moo ko lal ak bëgg a dimbali nit ñi rek rawale leen ngir jëmmi yàlla ak ak ak ak wéyal njàngale moomu nga xam ne moom la sëñ Touba andi woon sëriñ Saliou Mbacke nekkoon ci. mbir yi ñëw ci ay loxoom mu téye ko bëgg koo wéyale rek muy wéy ba ilaa yawmi diin kon loolu njaboot gi war nañ koo xam xam ban taxawaay lañ war a am ci loolu ba taxawaay bi mooy du taxawaayu sax toog di ñeetaay mbaa mbaa xool rek waaye taxawaayu jëf dëgg-dëgg la war a doon taxawaayu jëf dëgg-dëgg la war a doon soo amee am xel nga indi soo amee luy jàppandal nekkin wi baax na soo amee luy tax dégg nga xalaat bi lu tuuti tuuti dégg nga nga karmat ko ñu mën koo jariñoo ngir liñ ci bëgg mu mën a sotti rek baax na moo tax kenn du ci xeeb boppam te njaboot gi itam ñëpp moo leen njaboote kenn ko ci amoon xel mu rafet di ko wax ci luy jubal loole dana ko taataan dana ko déglu lañ ca war a mën a jëriñoo dana ko jël boo lañ ci dut jariñoo ñu bàyyi ko te da nga am tuyaaba yi ku bëggoon lu baax ndax ci lislaam moom boo góorgóorloo bëgg lu baax yow yow da nga am ñaari yool boo taseeg moom boo tasewut ak moom tam mu gàtt-gàtt danga am tuyaay bay ku bëggoon lu baax rek moo tax kenn ku ci nekk na xalaat ci loolu bàyyi ko xel xam ne lu sëriñ bi yëkkati la te dafa méngoo ak suñ thème bii ñuy waxtaanee lu sëriñ bi yëkkati la ci ci xam-xam la jëm ak yar doomu aadama yi loolu tam lim ñuy dimbulee ñu xam kii ñu àndal ku mu doon ndaxte soo àndeeg sa kilifa sa sëriñ jox ko sa bopp jox ko sa njëbbal mu lay teete di la yóbbu nga gis mu lay teg ci xam-xam di la teg ci yar li ngay njëkk a bàyyi xel mooy man naa xam lu ji naa xam lu ji ndax kat moom dalay wan aw yoon dalay wan aw yoon su la wanee aw yoon ba nga gis ko nga dem xooli yoon woowu foo ko mën a amee daara yi ñu am ci suñ biir daara ju ci ne lum gàtt gàtt gàtt war nañoo jëmmal jëmmi waxtaan wi tey fexe ba am benn banqaas boo xam ne ci njàng ak jàngale lay jëm ak toppatoo yar daara ju ne am ko ñu fexe ba nga xam ne tuut tànk yi ñu leen di yar ci diine di leen yar ci ak taalube dégg nga ba ñu màggee loolu fuñ mën a ne ndax loolukat bokk na ak bëgg-bëggu Cheikh Mouhamadul Mourtada Saliou ndax bu sañoon képp ku ñuy tudd di ko tudd nit ku jàppandi lay doon te lii maye nit ku jàppandi nag mooy mu xam wàccuwaayu xam-xam ba noppi soobu ko te bu ko yàlla dimbalee lam ca xam lu mu tuut tuut mu di ko jëfe ngir jëmmi yàlla kon loolu ay mbir la yoo xam ne faw ñu yeggale ko waxe ko noonu ngir ñu xam taxawaay bi nga xam ne moom la daara ji am ci ci xam-xam ah, su ko defee nag euh, li ci des li ci des day nekk ay ndénkaan rek yoo xam ne euh, mag ñi ak gone yi ak at at yuñ mën a toll ndax boo boo boo waxee wàccuwaayu xam-xam ci yoon wi kat dangay koy delloo tam ci Serigne Touba Serigne Touba noonu ma ko waxee woon nga xam ne da daan bind ay téere di ko jagleel ndaw ñi ak waxambaane yi mooy ñi nga xam ne ci ay araf lañ toll boo leen waxul ay araf dégg nga ñoom duñ ko mën a xam moom la ñuy xam di ko xam di ko xam ba màgg ci buñ ci màggee doo ko mën a jëfandikoo ni mu waree waaye am na ci mag ñi ñoo xam ne daan nañ bëgg a jàng te seen xel dafa weesu xami araf sëriñ bi da leen daan defal ay tomb ñu koy jàng ay tomb yoo xam ne da leen ciy jàngal wéetal yàlla ak tomb yoo xam ne da leen ciy jàngal fiq ak tomb yoo xam ne da leen ciy jàngal lan mooy ak rafetal seen diggante ak seen bopp seen diggante ak seen moroom seen diggante ak ak ak yàlla sunu boroom tomb yooyu tamit ni ma ko waxee léegi daara ju ci ne lu bari la mën nañ koo jël di ko jëfandikoo ñëpp di ko jëfandikoo ñu xam ne liñ ci soxla foofu mooy liñ ci soxla mooy euh, fu ci nit toll bu mu wax ne man mag laa dootuma jéem a xam lu dara saye boo ñu jàngal gone yi déedéet daara ji nañ jàngal gone yi mag ñi ñu jàngal leen ci seen niveau ñi leen mag ba fu sës kenn ku ci nekk na jéem a xam dara loolu laa doon mujje di ko def ay ndénkaan ndax xam naa eh, niñ ko tëralee waxtu wi am na yeneen mbir yoo xam ne moo ci topp te sëñ Abdoulaat Bousso tam eh, sëñ maam Cheikh ubbi woon na jotaay bi ba leeral lu bari sëñ Abdoulaat Bousso dabe na waaye du ñàkk tam moom tam mu mu mu am lu mu ko tëjee loo xam ne mbooloo mi danañ ko mën a jariñoo jërë ngeen jëf ñi ngi sant bu baax. di gërëm ci teewlu gi wasalaamualeykum wa rahmatullah euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo euh, di leen siyaara nuyoo bi ak siyaara ñu ciy jiital Cheikh Mouhamadul Mourtada moom Sëriñ Saalixu di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko te yokk ko wér ak kàttan te bàyyi ko fi ba lim yéene liggéeyal maanaam lépp mu mottali ko xam naa dañ ciy barkeel lu tuuti te gàtt rek ndax sañ Basiir moom moo waroon def waxtaan wi te indi na ko itam ci anam gu yaatu anam gu leer itam loo xam ne doy na sëkk wax dëgg yàlla xëy na njëlbeen nga sax am na luñ ci raw ndax xataay yoon beeg ci aju ñu koy jégalu bu dee li doon waxtaan nag tomb bi am na solo lool. ndax xam-xam ci yoonu murid moom koo wax mën ngaa wax lu baree baree bari te du jeex ndax yaatu goo xam ne yaatu na ko ndax sëriñ bi ci jëmbam buñ doon wax ci aw yoonam yoonu murid wala ñuy wax ci am njàngaleem ci ponk yi nga xam ne ci la ko tabax lañu cay njëkk a tudd mooy xam-xam mees naa wax xam-xam wax jaamu yàlla wax ay teggin yu baax yu rafet wax liggéey yooyu yëpp di ay ponk yu dëgër ci njàngaleem sëriñ bi waaye ba nga xam ne moom lañ cay jiital nag mooy al ilmu naafi' xam-xam bu am njariñ xam bu am njariñ mooy ponk bi jiitu wala keno bi nga xam ne moo jiitu ci li nga xam ne moom la sëñ bi jël tabax ci yoonam wi ak njàngaleem mii nga xam ne moom la bàyyee te xam-xam bu am njariñ weesuwut lu dul xam-xam boo xam ne day feeñ ci comportement nit ki day feeñ ci ay jëfam feeñ ci ay waxam bu waxee ñu xam ne borom xam-xam moo wax bu jëfee ñu xam ne lii kat jëfi borom xam-xam la feeñ ci ay jikkoom ci ab jëflanteem diggam ak ya boromam diggam ak ay moromam diggam ak boppam koo gis xam ne kii nitu yàlla la nga xam ne aalim rabbaani lay doon ku mel noonu moo bi di jàngale kon alimun naafi moom mooy li jiitu ci wooteeb sëñ bi wala am njàngaleem mees naa wax ne xam-xam bokk na ci jumtukaay yi nga xam ne sëñ bi da koo jëloon ngir di ci beesal ñu wax beesal dafa ñëw ngir doon beesal si euh, njàngalem lislaam delloo si ko yeesalaat xel yi delloo siwaat leen ba ñu xamaat lan mooy lislaam dégg ko waaye dund ko itam di ko dund xam ko ba noppi di ko dund muy feeñ seen i wax di feeñ seeni i jëf jumtukaay yi nga ko doon defe nag xam-xam daf ci bokk wala sax mooy da ci jiitu kon jumtukaayu yar la ci moom jumtukaay yu beesal la ci wàllu diine ci nekkoon jumtukaay yi itam boo xam ne dañu jaare di ci di jihaat itam jihaat jihaat bi mu doon def ak noon yi jihaat la boo xam ne wax na ko ne nekkutoon jihaatu ngànnaay boo xam ne yëkkati ay ngànnaay di xeex ak ñoom waaye jihaatu jihaatu xam-xam la ak ragal yàlla ndax wax na ko ci xasida ak yaa jublatan nga ba ñu wax naan yéen yéen ngi may tuumaal yéen ma génne génne ma wax ne man kat jaamu yàlla boo xam ne damay jihaat mu ne loolu ngeen wax de damay jihaat dëgg la damay jihaat waaye jihaat bi may def mooy jihaatu xam-xam ak ragal yàlla inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan xadiman wal muhayminu shaahidu kon jumtukaay la boo xam ne moom itam bu daan jëfandikoo la ngir di ci xeex ak noon yi kon mësta yëkk ci ngànnaay mësta lor kenn mësta def kenn wala mu wax kenn lu mu war wax waaye xam-xam te daan jaar ngir liggéeyal yàlla di beesal diineem ji di jihaad ak noon yi waaye sëñ Basiru tudd na ci lu bari ci soññe yi nga xam ne def na ko soññ murid yi soññ taalibe yi ngir ñuy jàng di jàng xam-xam bu am njariñ te di ko jëfee bind ci lu baree bari yemul rek kii di soññee naan da ngeen jàng da ngeen moytandiku réer ndax ñàkk jàng pexem seytaane laak ku leen dëdd loo xam-xam da ngeen xam ne mooy kuutaayul seytaane ci kaw suuf ak yem wax ci soññee yëpp bari na lool waaye moom nañ li ñuy xam ne mooy noonu mu soññee ci jàngale dafa jàngale moom ci jëmm jàngale na ca ba muy am jotug jàngale bi mu demee ba amul jotug jàngale samp na ay daara samp ay nit ñuy jàngale samp na suñ daam Abdourahmane Lo muy jàngale alxuraan suñ maam Ceerno di jàngale fële xam-xam sëriñ Mbàkke Buso samp na ko muy jàngale samp ay daara yi boppam yoo xam ne moo leen sampoon ca cosaan yemu ca waaye taalifal ñu ay téere itam ngir njàng mi a yomb ci ñun taalif ay téere waxoon na ko ne li ma leen sant rek mooy ngeen jàng bu dee taalif yi ngeen war a jàng téer yi ngeen bëgg a jàng moom daa leen ko naa leen taalifal leen téer yooyu nga xam ne mooy téer yi ngeen bëgg a jàng mu indi ko nag ci anam goo xam ne anam gu gàtt la te leer yomba jàng ci méthode boo xam ne itam yéeme na lool ba boo ci yaaree tàmbale ca da ngay daal di am ak ubbiku ci xam-xam kon loolu la waaye moom sëñ bi ci jëm euh, ba ni mu fi jógee sëñ Mbàkke Bousso dafa nett lu am solo wax ne sëñ bu mag bi mu fi jógee euh, ci li ñu xam bàyyi fi dul rek ñetti mébét benn bi mooy jumaam ji ci tuubaa beneen bi ci topp mooy yéena ji amoon ci dem Màkka aji Màkka beneen bi ci topp mooy mébétu taxawal daara ju mag a mag a mag joo xam ne jubluwaay lay nekk ci sàkkati xam-xam yi fu ñu mën a jóge rek bu ñu yee mën fay jàng mu ne sëñ bi daal xamuñ jenn mébét wala jenn kii seem bu mu fi bàyyi lu ñett yooyu kon daara ji daara ju rëy rëy joo xam ne lépp lu waaye bëgg a jàng ci xam-xamu lislaam xam-xamu sariya foo mën a jóge rek boo ñëwee fekk ko fi loolu nee sëñ bi mébatoon na ko bokk na ci nga xam ne bàyyi na ko fi yaakaar naa loolu ñi fi bàyyi ginnaaw bàyyi nañ ci seen waar bu baax a baax xulafaa yi ak ñi nga xam ne ñoom la sampoon ñu daan jàngale wuut nañ ko ci sootal nañ mébét boobu itam sootal nañ ko bu baax a baax xam-xam ginnaaw bi dund na borom xam-xam yi gën nañoo tasaaroo Cheikh Mamadou Moustapha bay na ci aw laaj daan jëli ay borom xam di leen indi ci dëkk bi ñuy jàngale kenn ku ne xam na lim ci liggéey Cheikh Mamadou Fadal bi jumaa ji àggee euh, ubbi ko mu jël ab jàngalekat bu mag Alhaaj Mbàkke Jaxate ku ne xam na ko sëriñ As Jaxate dañu ko mag boo xam ne ñu bari ci loxoom lañ jaar wala mu bari bari jàng ci moom ni ko noonu euh, sëriñ Abdoulaye kenn ku gis na liggéey yu mag yi nga xam ne def na ko ci dajaleel ñu ndonolu sëñ bi ci wàllu xam-xam ak la ci aju ak daare kaamil ji seem bu mag bi nga xam ne tax taxawaloon na ko muy université bi nga xam ne moom masruwa la woon booba doon gisee fu soree sori Cheikh Mamadou Mourtada ak école yi nga xam ne tasaaranoo ci Sénégal gépp Azhar Serigne Salihu moom bu ñu ci waxee mu xam ne moom mu li ñu gën a jege li am solo foofu muy Serigne Salihu nekk gi mu nekkoon yarkat waaye xam-xam ak ni ko sëñ bi joxe woon yitte boole ko ci am njàngaleem muy li war a jiitu amul jenn daara joo xam ne sëriñ bi daana ko taxawal daara yëpp nag lu dul daara joo dem dana jël ab borom xam-xam bu mag boo xam ne bu ñu naw ab xam-xamam lay doon koo xam ne ku rafet xam-xam te mu jël ko teg ko ca daara ja te loolu ñun am nañ ci ay firnde yu leer a leer ndax jaar nañ fa daara ju ne xamoon nañ ña fa nekk ka fa doon jàngaleek ay borom xam ñoo fa nekkoon daan fa jàngale te loolu da cee bàyyoon xel bu baax baax amul jenn daara dul da dem fekk fa fay jàngale koo xam ne moom wàllu xam-xam moo ko yor ba am na ci ñoo xam ne daara Sëriñ Saaliw génn nañ fa waaye lépp lu nit di xam rek su ñu war a xam ci seen xam-xamu diine xam nañ ko nekk ay borom xam-xam yu mag am na ci xam ne xam nañ leen kon loolu di lu am solo di ay bind yoo xam ne yu mën a teg loxo la di wane ne kon sëñ bi ndool li mu bàyyi woon euh, mag ñi fi bàyyi woon ak njabootam gi bàyyi nañ te ñàkk ñuy wax ak mbooloo mi nag den wax loo xam ne lu xam-xam la loolu njàngalem sëñ bi ci lañ koy tibbee mu nekkoon lu ko ñor lool itam xam ne booba la ci la yëf yi tàmbali woon yaakaar naa booba léegi amul genn gàmm goo xam ne jot na loolu dañ def yu mel nii loolu day wane yitte yëmu ci waaye am na yenn projet yoo xam ne sëñ ba juñ am na lu mu ci juñ kon loolu dañ koy sant yàlla di ko ñaanal yàlla rek lim ci soobu ak fi mu ci bëgg a àgg yëpp yàlla àggaleel ko ko ngi dellu di leen sant leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Abdoulaye waxtaan wi leer na ci sëriñ Touba ni mu fonke woon xam-xam ak ni mu ci soññee taalibe yi ak li mu taalif ci ay téere ak li mu soññee ci boole xam-xam ak jëf ndax jëf ju àndut ak xam boroom du xam lam cee jëlee waaye xamit bu euh, bu àndut ak jëf daanaka du am njariñ kon nag kon sëriñ bi leeral na kon ne sëriñ Tuubaa ni mu soññee ci xam-xam soññee leen ci boole xam-xam ak jëf ñu gis ne ba tey kon ni ko suñu ab laat leeral la it mooy waa kër sëriñ Tuubaa yépp ci foofu rek lañ tegoon seen tànk loolu moo waral tey université bu mag bii sëriñ Muntaxa yëkkati te mu lekk loo xam ne sunu boroom moo ko may sëriñ Tuubaa mu wax ko mu safa li banal quddus madrasatan biha yazulul aza wal jahlu wal kabadu sëriñ Basiru leeral nañu ne sëriñ Mortada mii di sunu yaakaar foofee sëriñ tubaat soññee woon ca lam nekkoon sëriñ Saaliwu nekkoon ca ca loolu rek ci la nekk fas yéene di ko dundal ba tax na li nekk ci ay loxoom ak ñi aju ci moom dafa bëgg yoon woowu ñu tegu ci ba sëriñ Basiru leeral na sëriñ bi dafay wax ne bu sañoon daaira yi aju ci moom daaira bu nekk dana am daara ci biir ñu bañ a yem rekk ci di daje waaye boole di jàngal ndaw ñi ak mag ñi ñi nga xam ne sinum njàng soriwut ñu xam ne daara daaira bi daara day nekk ci biiram boole jàngale ak yare nga xam ne daaira bi ku ci bokk bu fekkoon ne sam njàng soriwut mën nga caa jànge ba lépp loo war a xam ci say farata nga xam ko loola sëñ bi da ci soññee bu baax loola it moo waral projet bu réy bi di ngaaboo nga xam ne mbokki taaliba yu ne mbokki taaliba yu bari yëg nañ ko ñu bari it seen jëf feeñ na ci bu wér a wér ñu ciy gën a soññ mbokki taaliba yëpp ndax kat sëriñ bi bu ko def bu koy def ngir dimbule taalibe yi la ak gën a wattu ndono ko sëriñ Saliou bàyyil loolu moo tax kon nag sëñ bi ni ko loolu yitteele képp ko aju ci moom loolu war na la yitteel lool képp koy sax ab morit foo mën a nekk loola boo ko déggee war na la yitteel nga xam ne sëriñ bi dafa bëgg ñi nga xam ne dañuy ñëw xel koom jaar fa jàng alxuraan ba mokkal bind kaamil mu yóbbu leen ngaabu wut ab jàngalekatu xam-xam teg fa mu leen di jàngal xam-xam ak bépp métier boo xam ne ni daal leen amal njariñ loolu lépp lu mu naan la ngir fas yéene ko faa def kon nag loolu sëñ Basiir leeral na ko taalibe yëpp war nañ cee def yitte ñi ngi ñaan sëriñ bi yéeneem àgg li mu naal lépp sunu boroom àggal ko ci dara ji sëriñ Saliou Mbakke ñi ngi ñaanal mbokki taalibe yëpp yàlla na nu yàlla may nu fekkee ay déwén yu baree baree bari te lépp lu ñu ñaan ci màggal gi ak lépp lu ñu ci dund ci